fi mu nekk nii nag dem beeg dikk bi dala soppeeku ci taxi car rapide njege njaay wala sax bus ñooñee nga xam ni nag ñoo yóbbu ku nekk fa nga bëgg a dem ñoo ngay daw comme niñ koy defee saa su nekk moo ne de mbir moomee mën naa rek soppeeku fi yëkki fan ndax it njiitu Pastef di Ousmane Sonko xamle na ni rek nañu topp ab grève général fii ci saam nag yenn dawalkat yi di xamle ni nag dinañ topp bile grève. waaw dañ koy rafetlu rek ndax jaayam doole gi dafa métti dañ ciy ànd. waaw waaw bañ a gaa d'accord man maa ngi si biir. grève générale nag ci dawalkat yi direk tax nit ñi nañuy demee ak njënd méngaay mi taxaw lool chauffeur yi di xam ne ni nag dinañ def lépp ngir rek ñu dégg leen. baax na. ñun instant bi lu ñuy lu ñuy dund moo gën a métti grève da liggéey di xëy bay bëgg a dee doo am dara. moo ne de ci seen wet ñuy rek ay chauffeuru taxi ñi xam le ni nag boobu la grève ñoom duñu ci bokk. dégg nga mooy mënuñoo topp grève bi ñu wax lañu topp grève bi mooy loolu ñun pare ñun mënuñoo bokk ci benn grève. grève bi day wax dëgg yàlla man du ma ci bokk ku ma déggal doo grève ndax yëf yaa ngi bëgg ëpp loxo. te lu man doon ci waxtaan lay mujj fee waxtaan amul jàmb du man a xam. la ko waral nag. man daan doole laa su ma liggéey du ma lekk. ndax li tax amul mooy ñun ñëpp rek faraatu kat moom day faraatu lekk kuy faraatu nag mënoo ñàkk a faraatu. dem ñu ne mënuñoo ji suñu bopp wala ñu ñoo fi nekk askan bi. dawalkat yi nag ñenn ñi nangu ni dinañ topp bi la grève ñi nag bañ rek ni duñu topp boobu la grève fii ci Sam nag dawalkat yi nga xam ni ca seen boobee activité la yaakaar ngir rek mën a faj seen ajo di xam ne ni ñoom dañuy liggéey ay bis bu nekk.